lañu nar a nekk ñoo nar a nekk magi Sénégal ëllëg Ah, am na danger te xel instant bi war naa ñaaw donc yooyu yëpp jar na bàyyi xel ñoom xam naa ne ñàkk ñu ngi ñuy xool ñi nga xam ne ñoo yor protection wu xale yi fii ci réew mi lii dinañ ci jug te jël ci ay mesures bu baax a baax ba benn parent dootul sañati ko def benn nag parent bu xalaatatoo tabaski wala xew jot mariage lu ne nga jël sa doom posal ko xeef tegal ko greffage euh, euh, euh, ba pare di ko si napp xale bi yor pochette nga takkal ko ay chaine mu mel ni kenkaay yëri loolu dootu fi amati loolu moom ñun ñoo koy bañ ba mu tëdd ci naaj esclave. <laughs> Ah. mais ni loolu daal mais merci beaucoup d'être revenu dessus justement mu nekk fee boo xamante ni bëri na ci ñi ko naqarlu aussi ah fii ci mim réew Sénégal ce que xam nga asma photo yi ñu wane yëpp du benn nit bi maanaam ay nit ñu bari ay xale yu bari lañ ma looloo ma gën a metti daal ba moment ci seen addina rek le parent bi nekk euh, Dakar kii nekk feneen ak feneen la mode. Bah donc c'est une mode à éliminer justement. Ouais, mode bu bon la justement.